bismillah waaye ñuy dee ci géej gi la bëri na de. musiba mbaaba ku ma day moo am nag ca géej a waay gële dama ne la fa dee toll na ci fukk ak juróom ci ay doomu aadama ci ñetti weer inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dama ne la diggante weeru mars la ak juin yéene kaa gi ne fanweer ak ñeent ci ay doomu aadama yoo xam ne daal wàññi nañ leen am na ca ñenn ñoo xam ne génn ñoo bakkan de ak ñoo xam ne rawale nañ leen waaw juróom benn yu ñu sowe ak fukk yoo xam ne nag kenn gisu leen ba léegi nii la allahu akbar libération yi ne kaa ne dama ne la ñetti néew mu yow laast ñeenti la kay ñoo labaat box boobu li ne musiba mbaaba kuma day lim ngi doy na waar yéeni kaa gi ne waaye président Macky Sall day tiislu na li xew na xarlu ko jël ay mesures woo na tamit waajuru xale yi ne nañ cee xale yi waaw enquête yéene kaa ne président Macky Sall ci boppam nee na lii kenn mënu koo jéggale intolérable laa la wax yow kenn mënta jéggale lu ni mel ni lé te jamono jooje lambar lambar gaa ngi mel ni tuleeg ma le Sud Quotidien campagne électorale ba door na te waragul commencé waaw diggante tournée économique gu Macky Sall bi lee tibb tànk Macky Sall bi ak waa gëm sa bopp tournée nationale grand parti bu Alaaji Malick Gakou ndajewu M2D ak yeneen ak yeneen sax dama ne la machine ba kay fi nekk ni la mbir ma door laa la wax ci état major yi waaw Dakar Times ne waaye gis nga élection locale yooyee ak élection député yi ah gars dañ koo nar a boole de maar di taali weeru juillet 2022 fa la élection yi a ñaari élection ñu dëgg leen fi kon ci juróom benn weer Serigne Abdou Mbacke Bara Dolly day ci direct news waaw ma dalal seen xel gis nga élection locale yi lée dina am de ah non am terminé yéene kaa ne tournée tibb tànk bi day ca Saint-Louis gale bugaan ngay dani waaw daal dinay weer wii pande yekk lu mel ni xamee Macky Sall nguuram gi lée parce que njiital gëm sa bopp nee na askanu xaar yàlla googee ca ndar ah, lu raw sonn la ñu def nag laa la wax ah waaw waaw yow ay nervi yu Macky Sall ne dañu koo fa seenee jag loolee waalo gii ak diwaanu Fuuta daa la wax ñii dal sa bopp naxarlu na tële gi nga xam ne kon moom la nguuru Macky Sall gi lay kon daal di tële Macky Sall moo mais vox populi ak laas waaw nee nañu gars yi gàttandu nañ ko comme ni ñuy gàttandoo buur ca fie fu Farba Ngom gi lée añam si wal waaw ak ca Fuuta gële le quotidien yéene kaay ne diggante inauguration la pose première pierre ak ay discours politique Abdoulaye Daouda Diallo day waaw loñ Sada Ndiaye ko fay dalal exclusive yéene kaay ne en tout waaw daal dinay jël coupe jox ko Abdoulaye Daouda Diallo uh-huh. Macky Sall ne dama bëggoon a gërëm félicité sama rak Abdoulaye Daouda Diallo mbooloo mi waa rek rek daal di tàcc Macky Sall ne Abdoulaye Daouda Diallo est premier responsable et coordonnateur de l'APR te man Macky Sall kontaan naa ci ADD ni muy liggéey ñeneen ñi la main dans la main yéene kaa gi ne moom Macky Sall moomee waaw diggante ma kor tamadoo Seydi mi lé Abdoulaye Daouda Diallo ak li mbir mi yëngu yëpp seen diggante ba daal ñu ngi ko téye rek ngi dëgër këcc critique yéene kaa ne Abdoulaye Daouda Diallo kay boo sàggane wala boo bëggee dégg dëgg Macky Sall mii buy dem xalaat nañ ne Abdoulaye Daouda Diallo lay jox bagaas yi ah ah yow xoola rek Abdoulaye Daouda Diallo mooy denc xaalis bi lé ñu dencaat ko kon xaalis réew mi lé di budget maire bu bokki jawee nga toftal ca nag mbaxana politique ba ba tax président Macky Sall ko xalamal di ko tagg ni la Abdoulaye Daouda Diallo mi buñ ko joxee nguur gi bu ëllëgee bu mu kenn de waaye est-ce que Kortamaro mi di Abdoulaye Daouda Diallo waaw est-ce que ko atal bu dee gars yi nañu ngir dem ay laafam terminer kaa ne waaye mu ndaga cité bi day njiital APIX waaw président Macky Sall dem ba xalamal na ko de nee na waa ayre laawoo jàppale da war a la le important ci biir réew mi laa la wax moom Mountaga Sy maa la ko wax cay Macky Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly day bokk gis-gis ci Direct News waaw nee gis nga Macky Sall mi lée pareegul de waaye tournée économique am bile dara lu dul nëbb rek am daleem ak lajj gi nga xam ne kon lajj na ko te manifestation weeru mars ba la ñu génn na ko yow balaa ngaa xalaat ne da jox ay ndaw liggéey waay waay da leen di tàggat ba pare Macky Sall taxawul politique yi ci boppam daf leen a war a libéré mënoo te ñoo ci kaso bi ba pare di bàyyi ay nervi yu yor ay jaasi di doxi seen soxla laa la wax lii lu ne vingt quatre heures yéene xoolal ma ces fabricants de l'état doy na nervi yi lée la république des nervis léegi daal ndumbelaan la ñu ndumbelaan la loi du plus fort moo remplacé république bi waaye Guy Marius Sagna nee ko gis nga président Macky Sall nervi bi nga xam ne moom la ñuy njëkk a rey ci Sénégal gi lée jàppal na yu lay mujjee laa la wax légitime défense waaw Guy Marius Sagna ne ci li gën a garaaw mooy Macky Sall ci boppam kon moo sant gendarmerie ak police ngir ñu tëj seeni bët ci kanamu nervi yi la mari taw ñaan ci critique yéene waaw nee gis nga démocratie day daa nangu ab déeréer di fitna goo lal ci kaw nit ñi source aané waaye tournée Macky Sall yooyee yàqu de doxul démb de Mamadou Racine Sy ngir gàttandu président Macky Sall day dañ doon luwee ay ñeneen ñee ëppale la ñu benn bis climatisé caxat-caxatee ko am na ci ay booy taawun yoo xam ne day gendarmerie bu njum da a jàpp ay vingt mille fay gars de pour ñu topp Macky Sall ci tournée nationale am bi le quotidien yéene ndigal gi nga xam ne Abdoulaye Matar Diop day ak imam Alioune Moussa Samb jox nañ ko lébu yële ci élection locale yi waaw daal dinay féewale lébu yë de parce que Abdou Khadre Gaye gis nga soutien boobee engagé wu yéene ne bu roog sooba day version sàppali ma lay jóob sa Thiès waaw nee na affaire réew mi ngi lé intérêt wu Thiès yëpp la yéene kaa gi ne mairie bu Medina day waaw Cheikh Ba nee na du ma nangu kenn di ma def ay mbirum sandaas ku ma jéem a yàq ma jàkkaarloo ak yow laaste étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo nekk day ca université Alaaji Ibrahima Niass ca Kaolack ak ca Fatick yëpp dañ yëngal dëgg démb laa la wax rawatina ca baare route nationale ba la def sàndante grenade day am na ci ngeen na ngaayam gerte gi de ah waaw waaw deux milliards cinquante six laa la wax la ñu ay opérateur allahu akbar Mor Dieng de aéroport lañ ko jàppee da dem Abidjan critique yéene kaay ne Aliou Sow day ancien ministre waaw nee na troisième mandat day xaw kan waaye man moom d'accord uma ca non <laughs> ca yàlla Macky Sall de ak lu mu bëgg a toog toog toog toog toog toog toog na ko leer na jeexal na te mu wax ci pétrole bi parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek moo paree ma ne la alaaji tëj gàttandoo buur dégg nga mhm. Sud Quotidien ñëw ak ñun ci campagne électorale avant l'heure gars yi commencé nañ door nañu ko kay door nañu mhm. c'est entre tournée économique marchandise yi opération tibb tànk au niveau de gëm sa bopp ah. tournée politique nationale grand parti Alaaji Malick Gakou ah ndajewu M2D bi ñu tëgg kon barki Demba Ndiaye. maanaam ci état major yi gars yi commencé nañu. Mm. ña nga yëngal yëngal de gars yi commencé nañu commencé nañ. source a ñëwal ñu ci xoola allié wu Macky Sall bi le mbirum tria la journal bi Benno Bokk Yaakaar la la bokk moom moom mi ngi nii mi ngi nii libaas laay mbuub la tudd membre Benno Bokk Yaakaar la. Mm-hmm. président parti de l'action développement da doon laaj ay candidat ci wàllum financement wu DER ak promise bi ay mille francs la leen doon laaj ak di pour cent prêt bi ak dugg na fi génn loolu entre 7000 ak 200000 moom daal mi ngi nii daal journal bi ko bindu du samay kàddu waaye yow ñëwal ci tournée Macky bi duñ ci wax ñi ko topp yëpp Ndakaaru lañ jóge bàyyi leen transporter ay militant ay militant kenn du ko transporter Macky ay militant kenn du ko transporter chandise geste amen non amen t-shirt ak deux mille francs eh, deux mil francs vingt cinq mille nañ nañ jox sama diggante HLM H&M ak biscuiterie yi mm-hmm. racine si lim fa jëlee ci ay nit ak a dañ leen di transporter jël leen yóbbu leen Fuuta import Mambay. ba doy jëmbat. Eh, vingt mais dafa am dafa am ñoo xam ne siré siré dafa am ñoo xam ne dañoo jàpp ne. Mm-hmm. liñ leen fay. moo gën a néew lañ fay ña ca des. ah waaw ah fa la xiiroo ma jolli xeex. ñu song benn bus boo xam ne climatisé door ko ay xeer. waaw waaw. Mm-hmm. nga ñëpp maase. booy taw yaa ngi ñu mujj jëlee a de gendarmerie ñu moo leen jàpp. Eh. xoolal booy seen parents yi xamuñu woon sax gars yi fu ñu dem. Macky bàyyil transporter ay militant <laughs> militant kenn du ko transporter moom président Macky Sall moomu nee na. Hmm. gis nga digganteem ak waa Fouta. Euh, danoo da feddaliwaat rek kóolu tegee confiance moom mooy continuer ba léegi nii moo fa nekk nag. Hmm. non Fouta moom moom moom moom moom jëlal. Hmm. yaay borom. réew mi quotidien ñëw ak ñun ngi nii guddi ñu nii fippu yee nekk ca diwaanu Casamance. ah la ñuy dund nag métti na moom président Macky Sall moom réalisation mi fële ci doonu Matam mais nee na c'est normal. Hmm? c'est normal faire des réalisations loolu mais loolu moom moo ko war. mooy yoon sax moom il est payé sax pour ça. Hmm, loolu yoon. <laughs> c'est le train qui a qui arrive à l'heure. m 2 moom. waaw ba bindoon nii importé. waaw <laughs> nii payé. nii payé nii importé. oui Macky importé. <laughs> ak di transporter le quotidien yéen kaay ñëw ak ñun ci tournée économique bi dégg nga loolu mettez mm-hmm. dans la chaleur de la nuit Macky dans la chaleur du Fouta diggante inauguration la pose première pierre ak discours politique mm-hmm. Abdoulaye Daouda Diallo nag jàpp na ne Podor amul doléance mm. Macky wàccoo nag ñu kon mat na selon lii waaw ah waaye xam nga lan moo neex ca ngi jëloon mooy dëkk waajur wu jigéen bu Macky Sada Ndiaye mooy dalal kii di Macky Sall kan mooy Sada Saada Ndiaye mooy borom borom borom avenue ya euh, mooy borom ñetti avenue ya <laughs> boo demee boo demee boo demee Fuuta moom la ñuy wax kaaw quoi mooy nijaay <laughs> tey moom kaaw mooy mooy mooy recevoir <laughs> jarbaat bi quoi moo jël ñetti avenue tuddee ko président Macky aca ñu dem ñu dem hmm? moom moom c'est que waa këram yi nekk waa kër yonent quoi moo tax may xaw a bëggoo jeexlu mel tey mbokk lañu ah am eh, dama ne monsieur le maire dama rek voilà dégg nga mais lébu yi tànn gi ñu tànn Abdoulaye Diouf Sarr. ak ah ak Alioune Ndoye problème yaa ngay démarré. Eh, wat gaal i yego. Eh, eh, ñoom Abdoulaye dañ ne. ñoom maire kenn du leen ko imposer ñoom Mantulaay ne leen waaw yéen da ne kenn du leen imposer maire ngeen di imposer maire ñii. ndax yéen yéenay lébu yëpp. Ah, non dama lay laaj. wat gars yi yéen daal ñoom ñoom attends defal daal monsieur le maire. ñoom nee nañ leen imposer maire. léegi ñu war a imposer. ñoom ñu war a imposer maire à toute la communauté Lébu. dañ eh, ko waxtaanee ba pare ba pare ba pare Ameth eh, imam bi dañ koy jox kàddu rek pour mu tëj waxtaan bi. mu imposer <laughs> mu ñëw mu ñëw imposer ba kàddu. d' accord kii yi nag dana neex. non imam tëj. waaw non bi. Eh, imam nga tëj suñu jumaa ji. pour des raisons de mbas. Hmm. nee na nit ñi waruñoo daje mbas dajale fële nit ña di investir ay candidat waaye Imaam Samb tam lii tam lan la. sa bokk neex. ah, ah waaye Imaam nag l'observateur ñëw ak ñun ci Imaam baa ngi nii Imaam Samb nga nee ca kaw waaye lii bu mu ko nangu. ah Imaam Imaam Samb. investir ba pare man man man man man ba pare man. ba pare man daal xam naa ni daal am na ci yenn kilifa diine yoo xam ni moom saa yi ah l'observateur ñëw ak ñun ci diggante Ndakaaru ak Tëngéej. Hmm. gis nga armée yëpp daanaka pe fees nañu. géej gi nangu na genn wàll gi bu Tëngéej fi bari te joxe joxe suuf bi ngay dégg yëpp dafa mel ni affaire yi moom ay affaire u cimetière bokkuñ ci. te ñoom ci lañu. ci lotissement yi. ah non ci lotissement yi lañu. ah kay. doo fay ndox doo fay courant. doo fa yéene kaa ñëw ak ñun ci Thierno Lo. ba nga yëglu de. Mm-hmm. ah non mi ngi nii. moom la fa Omar loo bëgg a jëlee di. déet moom kay moom wax na carrément ne Benno Bokk Yaakaar mënuñu fee defar liste waaye te Macky Sall ci boobu dugal ci loxoom. Mm. waaw moom nag nee na bëgg na daal ñu gën koo cërale. Mm-hmm. ah oui gën koo jox nag. maanaam ak ak yelleefam gëddam xoola waa gëm sa bopp ngi nii tibb tànk na fexe rek ba tànku mag yi ngeen di tibb na ngeen xam fi ngeen ko jëme te <laughs> 2024 non non dëgg la non 2024 monsieur le maire fii ba 2024 tibb tànk non Macky Sall moom fii ba 2024 mooy dawal gaal gi mhm. loolu am te ñun ñu ci biir ndox mi ak moom moom kay nañ ko ñaanal yàlla mu yegg ca tefes ga parce que diggante bii bu ne fi ñuul mit ak gaal gi ñun ñu suux léegi nag bu demee nag ba ca tefes ga moom it na xam ne troisième mandat dañ ko fi ñaan si na ko de wala nañ ñaanal gaal gi mucc dégg nga libération yéen nag xoola gerte gi li mën sor Diop di wax mais ça c'est trop mm. lépp cher deux virgule cinquante six ci ay opérateur mais xoola sa waay Mor Dieng aéroport de lañ ko jàppe da doon tukki Abidjan la doon dem déglu exclusive yéen a kaay ñëw ak ñun ci Abdoulaye Daouda Diallo nag Macky xalamal na ko xalamal na ko mon jeune frère tagg ko liggéeyam xam kii <laughs> la Abdoulaye Daouda Diallo kay Macky Sall da koo yëkkati ca xew ma yëkkati ko moom mun tagaas yi est-ce que am na ñu gën a yëkkati ko ñoom ñaar ñooñu hmm. critique na a ab nañu daaw Daouda Diallo nag boo defee ay analise rek dafa mel ni bu tonton di dem day bagage la koy jox hmm. déglu ma expliqué la de moom benn moom koppar yi rek moom moo koy denc xanaa xaw moom parti bi mooy gérer. mooy réew mi tamit mooy gérer koppar gi. le budget national waaw. récépissé parti APR moom moo ci nekk ak Macky Sall ak Abdou Aziz mbay bi nga xam ne conseiller en TIC le président de la République. dama ne Abdoulaye Daouda jàll bu nekkee ministre finance ak budget. Mm-hmm. nekkaat maire bu bokki jabe. casquette politique am ba nga toftal ko cax. président Macky Sall dëkk encore di ko tagg suba ngoon guddeeg bëccëg. dégg loolu kattanu nguur gi ñu jox ko ko Ablaye nii bu ñu leree bu Macky ni dem est-ce que du ko jox bagage yi mais trois points de suspension baa ngi mm. est-ce que dina mën a dékku nag laafam yi nga xam ne gars yi après dinañ ci jublu Macky lan moo tax ay affaire succession yi waxu ci dara xam na lu tax buñ fi njëkk a joxoon tey la la gars yi di rey Aliou Sow nii troisième mandat bi d'accord ci terreur bi nga xam ne nag maanaam moom moo am fi mu nekk nii waaye loolu du démocratie waaye ni ngi leen waxante dëgg du démocratie moo tax direct news ne Abdou Mbacké Bara Dolly. Mhm. nee na Macky Sall xanaa xamoo leen ne pareegul. mais élection locale yi ci nii ak ci nële danañu ko amal. Mhm. loolu la wax de yow nga jël ay nervi indi leen ñuy dóore. ngay dig mhm. ay emploi waaye alaaji bi nga dugg see ah, demante ah monsieur ah de la député du peuple dugal waaye. alaaji kaay taxaw nii kaay taxaw nii alaaji. ah den kay pelloo kaay taxaw na saal bi weex rek Dakar Times ñoo ngi ci nee na ay sursam daal hmm. nee ay sursam wax nañ ko carrément ne ko hmm. élection député yi ak locales yi dañ leen di boole juillet deux mille vingt deux au de janvier juillet parce que autorités yi ci boppam duñ d'accord tëgg fi ñaari élection en moins de six mois hmm. dégg nga mais alaaji nag l'info du jour a ngi nii ah c'est fabricant de l'État mais ay nervi Macky Sall Guy Marius Sagna nee na la mën a nangoo gendarmerie taxaw police taxaw ay nervi di leen gunge. ces corps la là. milice kay gunge. ay milice ay nervi ànd ak gendarmerie ak police yor ay yàq. di gunge. yor ay jaasi di dóor nit moo tax nee ko monsieur le président bis bu ab nervi dee ci réew mi jàppal ni moom deret jooju sa loxo la yow yaa ko signé. waaw eh. ah parce que dóor fayu lay mujjee. non dóor fayu lay mujjee lii bu dàqul mën fu ne. dëkk waaye ma ne dóor fayu lay mujjee. Hmm. du dëgg sax yow du yoon ni ko rappeur daan defee lii du dëgg du yoon. <laughs> ceci n'est pas normal ceci n'est pas normal. du nga def sa affiche. yow nga def sa affiche. ba pare jël say nervi ñu ñëw taxaw fa. ak seen i yat oui. yemoo ca mais mais police ay mbol da kay leen gàddu. police ak gendarmerie alaaji est-ce que mais mais ay hors la loi. mais Ahmed waaw mais. waaw mais waaw mais loolu moo ma jaaxal. police ak gendarmerie nan la ñu mën a nangoo. ay nervi ay wuyu. yor ay cour ni ànd ak ñoom di dox. ànd ak ñee tamit. waaw xanaa le port du cour là. du cour rek du mbolde mais xanaa léegi. Eh, arme en tout cas. en tout cas lu mu nekk cour cour tamit. en tout cas c'est un signe manifeste. d'un régime finissant président Ablaye Wade. deux euh, bi ñu commencé génne kalo bleu yi. bu leen yóbbu safa huit ans. daan daawoon nañ jëm daanu. régime boo demee. ah maa la wax loolu. culture culture politique gu Sénégal ak tradition politique gu hmm. Sénégal. bis bu ñu demee ba génne ay milices. milices yi am doon régime ça veut dire que c'est les signes de de régime finissant. mais Macky abandon de poste la. abandon de poste boobu. ah kii moo ko wax Abou Mbaye. doole. waa mais yow mais demal ci ministère yi. mais bu doon ministre yi nga xam ne alaaji waa ji daa dem seen zone sax ñu ne waaw mais presque ministre yëpp ñooy topp punkal ñu ngay importer directeur yeeg. ñu ngay ñu ngay roñ gunóor yi di la import export. toute la ba pare ba ba bi mooy président mi ngi foofu ba samedi. ça veut dire semaine bii moom Sénégal. Eh, quart de finale CAN handball la ñu koy euh, dooree Sénégal Congo mu mel kon tey jii si ngoon 15h. waaw 15h lay doon kon ñu jàpp nag équipe nationale jëm ci wàllum jigéen ñi nag ni tey euh, ñoom nag ñoo fas yéene ak équipe bu Congo ngir nag euh, lu jëm ci wàllum quart de finale coupe d'Afrique bu handball mu nga xam ne waxtu wi ñoo ngi koy kon boobu la jongante nag ñetti waxtu lay doon ca palais polyvalent des sports bu Yaoundé Sénégal nag moom bu daanee ñii di waa Congo rek da koy permettre mu mun a nag egg ca demi-finale ga waaye tamit qualifié ci coupe du monde bi nga xam ne nag dinañ ko amal ni ki ñaari fan jàpp fukki fan ak juróom-ñeent ci weerum décembre foofu ci Espagne di fàttali nag ni gaynde ak Sénégal yi nag ñoom ñoo nekk vice championne ci boobule compétition seen bébét nag moo ñu def seen kéem kattan ngir jël nag ñaar fukk ak édition coupe d'Afrique bu handball bi waaye nag gannaaw Sénégal ak ñii di kon yeneen jongante nag bu 11h jotee dina am ci diggante Angola ak équipe bi di RD Congo 13h nag Tunisie moo ci laale ak Guinée 17h ci diggante Cameroun mu daal boobule compétition ak équipe bi di Nigéria lay doon. Euh, football league Sénégal mu mel ni kon Casa Sport fësal na bëgg-bëggam. waaw Casa Sport nag soo xoolee waxtu wi nag moom nag moo ngi ci dynamique bu am solo ndaxte euh, moo ngi ci fukk benn match boo xam ne moom amoo ci euh, défaite Casa Sport di fàttali nag ni si ñaar fukkeel bëccëg bi nag moom moo daan équipe bu Dakar Sacré-Cœur juróomi ball ci dara kon waxtu wi ñoo nekk si juróomeelu place bi ak ñaar fukki poñ juróom-ñeent ni ki sànq ci français bi ñoo ngi doon teewlu kii di Ansu Diadio moom mu leen di tàggat en tout cas mbébétam nag mooy Casa Sport def kim kattanam ba nag des ci ñetteelu. Euh, trio de tête bi euh, bu ko weesoo tamit euh, am objectif yu am solo muy jël ab benn coupe temps passé sax jotoon nañu ci déglu kii di seen secrétaire général di Siaka Badian muy xam ne daal en tout cas waxtu bi Casa Sport bëgg-bëggam mooy lu mu néew néew ren ji nag mu jël benn coupe fii ci réew mi éliminatoire CAN 2021 match Sierra Leone Bénin mu mel ni kon tey ji sa Conakry waaw en tout cas daal match bi nag bëri na ay jafe-jafe gannaaw bañ koo dàqee woon ni ki ëllëg nag lañ ko démb lañ ko fas yéene woon amal waaye nag démb tamit ñu seetlu ne dafa am ay cas Covid 19 yu ñu nag nemmeeku ci joueur Sierra woon yi kon juróom-benn si ñoom ñoom la ñu testé ñu am Covid waaye teewul nag lii di confédération africaine bu football ni ki nag tey jii la fas yéene amal boobu lay jongante bu 16h euh, jotee euh, foofu nag ci stade général Lassana Conté nekk ca euh, Conakry kon ñu fàttali nag ni ñii di waa beneen ñoom waxtu wi ñoom ñoo nekk am nañ lu tollook ak euh, juróom-ñaari poñ kon match ñu lekk bu ñu ko amee dina leen nag ñu mottali ñaar fukk ak ñeenti équipe yu fas yéene teew ci weerum janvier atum 2022 foofu ca Cameroun euh, Sierra Leone nag bu bëggee qualifié ci boobule Coupe d'Afrique kon faaw mu daan ñii di waa Bénin loolu moo koy permettre moom mi la mu nag rejoindre équipe yu mel ni Sénégal foofu ca Coupe d'Afrique ci janvier atum 2022 ca Cameroun ñu bàyyi la nga jox ñu programme ak résultat yu euro 2021 euh, ak Copa America waaw ñu tàmbalee ko ak lu jëm ci wàllum euro bi kon première journée bi ni ki tey nag lañ koy ndar képp jàppal na 16h Hongrie ak Portugal mi yore raay gi lay doon 19h nag choc bu ñëpp di xaar. wara a dox ci diggante équipe bu France ak Allemagne la kon Écosse moom jàppal na ni ki démb moom dafa daanu ci kaw kanamu république bu Tchèque ñaari bal ci dara Pologne moom Slovaquie moo ko daan ñaax ci benn ci diggante nag Espagne ak Suède dañoo témbo zéro but partout la ñu def résultat première journée jëm nak ci Copa América bi ni ki démb nag ci groupe A bi Argentine moom dafa def match nul ci digganteem ak Chili benn ak benn Paraguay moom moo daan ñi di waa Bolivie ñett ci ñaar kon ñu jàpp ne nag ñaareelu bëccëg bi dinañ ko tàmbali nekk ci alxames gi ab euh, Brésil mi nga xam ne mooy dal compétition bi nekk ci première place bi ci groupe B bi moom dina ci euh, laale ak ñii di waa Pérou bi nga xam ne ñoom dañoo exempté woon ci première euh, journée bi kon ñu jàpp ne Colombie moom mooy ci laale ak ñi di waa Venezuela ci àjjuma ji nag Argentine moom dafa nag fas yéene moom laale ak ñi di waa Uruguay kon Argentine faaw nag mu jubbantiwaat taxawaayam ci buggee nag qualifié jëm ci demi-finale yi ci boobule compétition ndaxte moom dafa amoon match nul ni ki démb ci digganteem ak Chili kon